Ousmane Sonko yegg si na tàccu leen ko bu baax a baax bu ko defee ñu mën a continuer ca la ca la parole. Tamam, tamam, tamam. na nga def ay cool wuyu ma téléphone bi day chauffé moo tax téléphone bi day chauffé bu chauffé day fay moo tax fekk ñëpp dëkk bi am nañ fa ay mbokk am nañ fa ay wëllëre maa ngi seen léegi sama collègue Mansour Sayoum xam ne ñoo bokk dëkk sama sama ngi fii ci mbooloo mi di sëñ Abibou Ngom coordination bi coordonnateur ak équipe yëpp ci liggéey bu rafet bi léeg-léeg sànq Pape Ari rappelé na fi ñu évolution bi ñu am fii ci département de Foundiougne waaye bu ñu amee loolu seen liggéey la yéen waa coordination bi kon nuyu kilifa yi ma àndal yëpp leader yi bëri nañ fi ñoom Aïda Mbodj ngi fi Maïmouna Bousso ngi fi Déthié Fall ngi fi euh, Malick Gakou ngi fi Boubacar Camara ngi fi bëri nañu maa ngi jéggul su dee fàtte naa ñenn ci lim bi di nuyu tamit euh, ñi nga xam ne dañoo bokk ci liste yi ndax numéro 2 ci liste nationale bi muy madame Mbaye Mbène Faye ngeen xam ko ci tandem bi mu def ak Mbaye Mouna Dièye ci mouvement des femmes du parti moom it mi ngi ci caravane bi ñu dooree ba léegi. di bu baax population Foundiougne ci dalal bi léegi Pape Ali wax na ko Foundiougne def ngeen ay progrès yu extraordinaire ndax foo xam ne bi ñuy door 2017 defe naa ñaata voix lañ fekk moom waaye élection bu ne am lu bëri lu ci yokk bu élection bii bu mujj différence de voix bi daanaka su bëree ba bëri 1000 la 500 et quelque kon def ngeen jéego yu rëy a rëy rëy waaye nag dafa mel ngeen xaw a nag. ak ay Ziguinchor ak yooyu waaye ñoom Mbacké ñoom Saint-Louis ñoom Thiès ñoom Tivaouane képp koo laal rek dafa mel ni score bi dépassé woon na 50 pour cent jëm ci président Diomaye Faye kon da ngeen da ngeen war a def remontada bu ngeen bëggee rek suñuy jaaraat fii suñu xool gën a sedd sedd na ba pare de ndax teranga moom dara mënu ko fay te ngeen def teranga waaye bu ngeen buggee bu ñëw suñu xool gën a sedd si moom da ngeen war jot Euh, exode rural dem dem Dakar doon léegi bu jël gaalam ne damay tukki parce que amatuma jël doo dégg doo dégg loolu mooy contrat bi ñuy proposé dañ koy ñu ñëw di noggatu di may xaalis wala di andi seen i entreprise ñu ñëw di liggéey suñu réew. rek loolu rek kon dañoo war a jël un nouveau départ moo tax bu leen kenn essayé na saxal seen xel ñëw naa leen juróomi weer réew mi liggéey ñu ko liggéey léegi lu ñu yàq pendant soixante ans ñu ko liggéey ci juróom lii fondation bi dafa desoon ba noppi waaye su ñu tegee béy cinq ans bu suuxaat bu reprendre foofu la ci toll moo tax première phase bi am ci suñu programme mooy phase redressement redressement la ñuy commencé bu ñu paree doog a impulsé doog a accéléré ci troisième phase bi dañoo bëgg yéen ngeen jugee ci phase d' arrondissement boobu est ce que pare ngeen ci. ngeen ni président Bassirou Diomaye problème ndox dafa mës doon yitteem bi muy nekk candidat en deux mille deux ci yëpp man damaa mën ngi ko wax ni ko soo duggee ci àll bi li fi daw na yaram moo tax bi ñu toogee premier conseil des ministres la joxe ndigal ministre Cheikh Tidiane Dièye dama bëgg ñu xoolaat condition yi nga xam ne ñooy am ndox ci àll ci lañu tabax taxawal commission commission baa ngi liggéey rapport bi nekk disponible ba nga xam ne ndox mi nga xam ne ñu koy gérer ci àll te ñëpp di ko jooytu ndax d'abord mètre cube bi ñuy jaay ci àll bi moo gën a cher lañu koy jaayee Dakar conseil yëpp ba Kaolack ñëpp xam na ndox la l'alimentation en eau de qualité et au même prix que partout. li may wax ni doo ay promesse électorale bu ngeen toogee gisu leen ñu liggéey ko buñ ñëwatee dina laaj ay voix dàq lañu. d'accord ak peuple bi. problème ndox boobu nañ ko réglé te suñ ko defee. en même temps day alimenter des centaines des centaines de de forages yu euh, bokkul ak ñuy alimenter ci circuit normal bi kon deuxième bi nga xam yéen a ngi dégg barrage u Samba Ngalu Samba Ngalu bu ñu xam nga barrage bi dañ ko fi fekk waaye bi ñu ñëwee fekk nañu mu bloqué entreprise française bi ñu joxoon barrage bi muy Vinci takk na ay bagages am dem yoonam nee na fayuñu ko. biñ ñëwee la ñu reprendre affaire bi gis ngeen keroog ministre Cheikh Tidiane Dièye ànd ak ministre euh, guinéen bi yor loolu tam ñu dem fa. barrage hydroélectrique la dafa war a joxe courant waaye dafa war a ne problème mu ndox bu bëree bëri pour mbay 40 000 hectares d'irrigation pour nit mën a bay barrage boobu tam ci lu ñu bokk bëgg a livrer la ñun ci mandat deux mille vingt deux mille vingt quatre deux bi. ba nga xam ne ci wàllu irrigation ak li nit ñi di béyee dinañ ko améliorer considérablement kon dama leen ne woon duma du mën a jukki lépp ci programme bi dégg naa léegi kuy wax mbirum port loolu bu ñu a wax volet boobu naa loo xam ne ci ay filière la ci filière xorom bi ak ci filière transformation lañ fi bay ci dugub ak gerte ak yeneen yu mel noonu fii wax naa leen ci wàllu ndox mi wane ne Kaolack di nuyu yéen ñi yi teew di ñuy nekk ci kër yi.